ngir yaatal lépp lu jëm ci liggéey média ci àdduna wërngal këpp rawatina ci réewum senegal ba ci Touba seen site internet bi di Mouride Info moo leen jagleel émission bu ñuy wax yeewu yeewi yeewu yeewi di jataay boo xamante ne bii daañ ci dalal boroom xam-xam waxtaane ci fànn gi nga xamante ne bii fa la xam-xamam jëm ngir mën cee gindi askan wi yeewi leen ci ba lépp loo xamante ne bii tënkoon na leen ci wàllu xalaat wala ak gindeeku ñu mën koo am ci jataay boobu yeewu yeewi nekk. da ngeen ko am ci seen site internet Mourides Info. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu mbokk yi nga xam ni ñoo jàkkaarloo ñi duñu seetaan ci seen site internet euh, Mourides point info niñ ko baaxoo defee nag euh, ci seen émission bi nga xam ni moo di yeewu yi di émission bu nga xamante ni dañ ko tànn ngir di ci dalal ñi nga xam ne ay mbokk lañu. ñi nga xamante tam ay hommes de politique lañu waaye tam di ci daal képp ku nga xamante ne daal métier boo mën di yëngu rek ñu la ciy fekk di waxtaan ak yow ci loolu nga xam ni moom ngay yëngu moo tax nag tey ñu ñëw leen fii ci euh, xaayra ci kër ki nga xam ni nag euh, moo di sëñ Cheikh Mbacke sëñ euh, sëñ Cheikh Abdou Mbacke Bara Doli moom itam nekk ci parti bi nga xam ni moo di bokk gis-gis su ko defee moom lañ fa séenee àndal tey ci jotaay boobu boobule Euh, sëñ Mbacke Dieng ci caméra bi waaye itam seen mbokkum taalib Moussa Diop ci présentation bi ñu fas yéene ànd ak yéen ci jotaay boobu nga xamante ni moom leen wax muy yeewu yi kon sëriñ bi ginnaaw bu ñu la nuyoo euh, ziar la bu baax a baax euh, dañ lay bàyyi kàddu gi rek su ko defee nga nuyoo mbokki yi nga xam ni ñoo jàkkaarloo ci duñu seetaan ci seen site internet murit point info ñu ànd ak waxtaan bi. bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi nuyu sama mbokki taalibe yi nga xamante ni ñooy seetaan ci émission bi ci internet bi ñu nekk ci biir réew mag ñu nekk bitim réew te di ñaan xalifa général du Mouride mu yàgg fu loolu te wér ba naal yi nga xam moom la naa la Serigne Touba mu àggal ak si jàmm man nag maay Cheikh Abdou Mbacke baar Dolly nekk chef lycée nekk tamit opérateur économique nekk tamit président de marabout l'extérieur nekk tamit coordonnateur bokk gis-gis si Touba. maa ngi rafetlu tamit émission bii nga xamante nii moom ngeen am man muy jataay bi ci ginnaaw bu gàmm bu noppi di ñaan ci barkeeb guddik borom gàmm gi sama borom defal ñu jàmm ci réew mi ak xiiwal di eh, am yaakaar bu baax a baax a baax a baax ni lépp loo xam ñaan nañ ko sama borom doon ñu ko nangul euh, euh, jërëjëf euh, kon xam naa fi ñuy dooree waxtaan wi rek mooy euh, nga présenté euh, sa jëm kan mooy Cheikh Abdou yaakaar naa wax nga ko waaye nag euh, fi ñu bëgg a dugg nag ci suñu première point mooy ci wàllu politique bi lañuy tàmbalee ñu bëggoon a xam Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly lan moo ko xiir ba dugal ko ci politique bi ak fan la ci doore waaw jërëjëf loolu lu am solo la pour leeral ko askan wi ñun politique ginnaaw bu ñu jógee ci daara ji ba jàng ba noppi jàng alxuraan jàng xam-xam jóge fa dam ndar ci alxasaar bu sëriñ Mutula wala fa jóge ñu ñëw alxasaar bi nga xamante ne mooy bu ndaam jàng fi ba am baccalauréat franco arabe yàlla dogal ñu jóge fi dem tukki Europe ak Amérique dem Asie bi nga xamante ne ñibbisi na nag fekk suñu waajur 98 mu fësal maanaam euh, jëmmam ci jàppale Ablaye Wade bi mu nekk opposant ci la ñu xiir ñu jàppale Ablaye Wade jamono yooyu noonu. jamono yooyu mu metti woon lool ñu baree bari tamit àndoon ak moom ginaaw bi ñu bàyyi PDS delluwaatoon ci PS ñu ñëw tamit ak ay moyens yu baree baree baree bare fekk ko ci këram waa PS doon ko def jamono yooyu noonu mu woo ñu nekkoon ay seere mu daal di naamtal ci ngore ak doylu ni àddina lu mu métti métti nit ku nekk fa mu nekk conviction moo ko fay def bàyyi moo tax ko jamono yooyu mu nekkoon PDS. ba tey jii mu continuer si loolu xiruñu si ba yàlla dogal nag bi nga xamante ne ànd nañoo moom ba euh, élection yi mujj yi deux mille deux mille deux mille douze yi bi ab Ablaye Wade demee mu leer na ni Ablaye Wade nee na woon bàyyi na te fekk boobu mu boole woon ñoo benn xatam bu ñuy wax Pape Diop ñu nekkoon ci cabinet am di liggéey nekk conseil spécial mu nekk Sénat muy suñu xarit suñu xartu baay yàlla dogal na bi nga xam ne ñuy samp bokk gis-gis. man mi bokk naa ci ñu samp boo bokk naa ci membre fondateur yi ci lañ créé woon parti bi ba tey ji ñu ànd si di liggéey ba parti bi am ndam yi mu amoon si Touba. ndax tey du risque euh, ko waxee chef de lycée ci politique Sénégal ak ni a doy waar. déedéet mais xam nga politique dafa am ñoo xamante ni dañuy wax politique mais dafa am politique am politicien politicien mooy ñi nga xamante ni du ñu sàmm seen kàddu du sàmm seen diine du ñu sàmm seen ngor ñoo ñooy politicien. mais politique ku koy def mooy koo xamante ni danga nga bëgg sa askan bëgg sa réew bëgg sa bopp ndax tey politique dana la may ba fépp foo xamante nii baatu askan wi àggu fa yow sa baat man fa àgg nga kaas ko muy si état bi muy commande doon ñun déggee loolu fay loolu noonu politique dana la may tamit ay opportunité yu bare bare bare bare ba tax na li nga bëgg liggéey sa réew te mënuloo ko si doole yàlla dogal mën nga am ay partenariat ñu defal la ko te loolu lépp politique moo ko mën a maye dañuy sàmm suñu ngor suñu politique sàmm suñu jom sàmm suñu diine sàmm suñu suñu bopp ba tax na lu mu metti métti mett ci benn parti nga ñuy dégg muy Pape Diop bu dee neex ñu ànd ak moom bu dee naq ñu ànd ak moom fas yéeneen tamit élection yi ñëw 2017 ñu jëlee fi mag sàll teg fi Pape Diop mi nga xam ne taalibe Sëriñ Tuubaa ba li ñu yéene ci dëkk bi yéen ko si réew mi sama borom dafa ñu ci jàmm ñu àggale ko. Euh, taalibi sëñ Tuubaa ñaari ñaari ñu bëri moom la ñu bu booboo waaye nag itam waaw kooku loolu la xam nga kooku moom fu mu dem ne foofu la bokk <laughs> moom fu mu dem ne foofu la bokk ñun ki nga xamante ni dafa judd ci taalibi sëñ Tuubaa kooku la mën a xam moom la mën a seede ak taalibeem mooy koo xamante ni maanaam xëy na dafa dem bu bëgg dara tax mu ñëw di sukk ni taalibe la kooku mun ñu ko gëm soo si ñaareel ba li am solo si nit ki nga sëriñ Tuubaa kenn mënu ko nax tey kan kan nga mën a gëm ni mooy taalibe Serigne Touba mooy ki nga xamante ne Serigne Touba xool na taalibe eh, xool na xolu taalibe yi def ci ak bëgg si ñoom tey tamit wér na ni yow Touba benn murit boo xam ànd nga sago bu bëgg mag sàll amut yow wér na la ndax Serigne Bass Abdou Khadir yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko muy porte parole bi maa ngi dégg bi ab laay waa Wade ñëwee seet si Serigne Sidi Mokhtar fële ci asalam Dakar nee na kon war ngaa sant Serigne Touba ndax bi nga amee ngërëm Serigne Touba de. moo tax Serigne Touba si boppam xol-xolu jaam yi dugal si ba foo dem nit ñi àndandoo ak yow te duñ si man te si man dara kooku mooy koo xam ne Serigne Touba nangu na ak taalibam te Serigne Saliou tamit wax na ni ab Wade li mu ko yéenee Serigne Touba loo koy ñaanal te ñun yaroon nañ si keppaar ñu baax ñoo xamante ne ni xam na ni Pape Diop am na ngërëmu Serigne Abdou Khadir te am ngërëmu si Abdou Khadir am ngërëmu Serigne Touba te lim mané a kus néew bu mané ak lim nek opposition yépp mi ngi ko fi def. déssa nak gis nañ euh, sëñ bi euh, ci période bi nga xamante ne bii élection 2012 jàll na yeen yow ak pap Diop bokk gi da ngeen a dem euh, bédé ko ablay wad tay ngeen di tagat ablay wad ndax nekul ni la ngeen sentu won moom ngeen gis motax ngeen bëgg a wad biir PDS. xam nga ñun won PDS Ablaye Wade mosuloo dégg ñu xass ko ablay wad mom ñu dañu àndoon ak mom ci ngor 78 le pap Diop àndoon ak mom man sama baye 98 la ànd ak moom mosuloo dégg benn wax bu ñaaw ñu wax ko Ablaye Wade 2012 jàll na nee na bàyyi na bu bàyyee nag ñun ñooy seet ku ñu neex ñu ànd ak moom ñun Pape Diop mooy neexoon moo tax ñu ànd ak moom mais doo dégg mukk ñu wax Ablaye Wade lu bon wala lu ñaaw wala ak njabootam ndax ji nañu teraanga boo xamante ni mënuñu ko fay gis nga ñun murid yi nga xam dañoo gëm Sëñ Tuubaa ñun ñëpp war nañoo dellu Ablaye njukkam ndax dafa am lu Serigne Touba gënoon a bëgg ak fu mu gën a sonne muy ndakaaru fa la gën a sonne la mu gën a bëgg muy jumaa Abdoulaye Wade moo ko jox suuf suñu tabax jumaa gi Masaalikul Jinaan loolu rek waroon na tax murit bu nekk tey nga jaayante Serigne Touba delloo Serigne Touba njukkal te jàppale Abdoulaye Wade ak njabootam te loolu ki ko mën nag maanaam delloo njukkal boobu noonu ci nga xam mooy politiciens yi mel ni Pape Diop la moom laa si gis ndax tey jàpp nañ Karim Wade jàpp nañ Omar Sarr mais léegi nan la askan mën a faje mooy jël Pape Diop jox ko parti bi wala ñu def coalition boo xam moom la ñu jiital taalibe murid yi wooteel ko ñu génn Karim Wade si kaso bi génn Omar Sarr ñoom ñi nga xam dañ leen a jàpp ay politiciens yëpp ñu génn leen jàmm am ci réew mi ak dal ndax réew boo ko dee da nga koy yor si ci ci xol bu yaatu mais doo ko yor si xët-xët doo ko yor si xupaate doo ko yor si jàppi ndax képp kuy tëj aw saw askan saw askan yàgg-yàgg dana la tëj te loolu maa ngi koy seedal ndax loolu ñi nga xamante ñoom ñoo ñu fi jiitu woon bi leen sama borom mayee doole ñu jël seen doole di ko teg askan woowu noonu yàgg-yàgg sama borom bugal na leen kon nag maa ngi ñaan ki nga xam moo jiite réew mi mu delloo si xelam te ñii muy jàpp defuñu ko dara mënuñu ko yàqal dara mu bàyyi leen te li nga xam Sénégal yi dénk muy réew mi mu def salam si man jóge fi kenn ñoo def salam leen si man ndax Sénégal du moom moo koy jagal. duñ duñ jeexal wala ñu gën a xuuse ci itam ci ñëwuñu ñu ci li nga xam ni jamono jii ci ginnaaw actualité la woon. muy euh, sën marabu yi ñi nga xamante ni ñoo mel ni yow ne ci politique beeg yu mel noonu ñuy gis ñuy am jafe-jafe saa su ne ak euh, ñi nekk ci euh, xilaafa gi ndax dañuy dégg léeg-léeg ñu génn ni seen marabu yi nañu téye seen kàddu bu ñu ne bàyyi politique bi Touba gi ñuy politiquer ca suñu bëggee politique ñu futteeku dem jàkkaarloo jeeg politiciens yi ca bàyyi sëñ Touba mi ñuy mbubboo di wax ba sëñ bi sax yëkkatoon kàddu ni bëggut dégg kenn ko wax ci turu yoonu murit jëm ci sa naataangooy marabu yi nga xam ni ñoom la ñuy dégg léeg ñuy génn di wax xam nga sëriñ Touba fi mu nekkoon du fa jóg fii dafa am lu ko fondement ay caaxaan lu ko sancut Touba ñun suñu maam mooy sëriñ Touba soxna Fadja mooy suñu maam mooy taawu Serigne Touba Serigne Abdou Dia moo suñu waaju mooy rekk soxna Fadja sëñ Bakk soxna moo ko jur Abdou Khadir jur ko mooy taawu maam Bala Aïssa kon kooku lépp lu Serigne Touba bañ ñun nga koy bañ le suñu maam sëriñ Abdou Dia am kóllëre gu am sëriñ baar mi nga xam mooy waajur xalifa général du murit ba jël sama baay tudde ko sëriñ baara mi baayam kon kooku démb la wante doo ko ñëw ndax sama baay muy sëriñ baara doli ñi ngi ko tudde sëriñ baara mi nga xam mooy waajur sëriñ Sidi Muxtaar kon kóllëre googu noonu démb la woon tey doo ko ñëw lépp loo xamante ni xalifa général du murit bëgg na ko si dëkk bi ñun loolu moom la ñuy àndal waaye dama lay wax ni dafa am ñoo xamante ni dañuy nekk si keppaaru xalifa bi bëgg lu neex état tax ñuy wër di wax te sëriñ bi yëgu ko mbat umpale wo jamono yi ginaaw rek amna ben way bo xamanteni xamante ci teppaaru bi la nekk ci mbokk sëriñ bi wax ba doobi sëriñ bi jog mi bayam waxul loolu kon loolu ñu di ko moytu élection yi jall amna ci ko xamanteni mi ngi ci kanamu sëriñ bi ni mo yoré sëriñ bi ci fi mbokk ci guy mbind bari ñu tuddam taxaw na ci rajo bi ni sëriñ bi nee na bu subaa na ñëpp wootee APR muy fas muy listam bi te liss boobu liste APR la bi ma ko déggee man maa dem ba ci Cheikh Bass Abdou Khader ma ne ko lu sëriñ bi wax nee na yow la ko waxloo nee na yaay tànkam yaay noppam yaay làmmiñam kon bu ma déggee loo xamante ni wax nañ sëñ bee ko wax te jéggoo si yow yow miy porte parole bi te ñuy politique war naa ñëw laaj la sëriñ bi ni ma loolu sëñ bi waxu ko ay timis ma demaat ca rajo ba ko kooko waxee daani bu suwaa bu kenn woote liste boobu noonu ndax liste boobu noonu liste sëñ bi ndax liste sëñ bi dafay weex moo tax bulletin blanc yi ëpp doole liste boobu noonu si dëkk bi man naa ko def mais du wet ndiglu sëñ bi mooy ñi nga xam dañuy mbubboo sëñ bi ñoom laay wan ni ñoom mun ñoo fexe fexe ba askan wi gëm leen sëriñ bi lu mu woote ñu fekk seen sëriñ bi lépp loo xam du lislaam amu si defar amu si yàq. ndax xam na ni ku baax la liggéeyal maam sëriñ Touba rek moo ko ñor mais nag dafa am ñoo xam ne dañoo ne si wetam di mbubboo sëriñ bi di tax maanaam ñuy manipuler ay nit yoo xamante ne seen i bokk la nag di leen yàq di dem ba si état bi naa leen noonu ñu dara yooyu yëpp du ñu war a ñaawal gis nga tey ñun dañoo war a xoolaat suñu bopp ñun waa Touba dañoo war a xoolaat suñu bopp surtout que kilifa diin yi naan kilifa diin yu ndaw lan ndax ñu ndaw ñooy nekk mag ëllëg. te koo fi gis rek am na ay waajur am na ay taalibe am na ak njaboot ndax Serigne Touba ñëpp moom lañ waaye dafa yaatloon ba seex kenn ku nekk moom mu la dalal am ñu ànd ak yow si ci loolu kon bu kenn xeeb kenn Serigne Touba ci kaw la nekk ñëpp suuf Serigne Touba la nekk mais suñu Touba la leen keneen nag boo ñu wanee Serigne Touba ñu ànd ak yow mais boo ñu wone Serigne lu du nga wàññi àddina ñu bàyyi la fa dem topp Serigne Touba loolu mooy li nga xamante ne ñun solo woon rek. ba tax na tey considération bi nga xamante ni nguur gi jox nañ ko sax Sénégal euh, euh, Touba tegu leen fenn du ñu wax ak ñoom du ñu fi ñëw di sàkku ñaan du ñu laaj si ndigal daanaka lenn loo xamante lu am solo lu ñu defal Touba loo ko gis kooku si ñun la suñu doxalin la mais Touba tey bu nu meloon nan waroon a mel tey waxuma la nguur gi fi nekk mais benn nguur boo xamante da nga yab Touba du am waaye xiiroo beeg ŋaayoo beeg yàqante beeg yooyu yëpp dafa am si dëkk bi te ay mbokk ñoo koy def. mbokk yi ñoo koy def gis nañ génn ñu génn suñu woon bu kenn waaw euh, ñu euh, lakk kër yi waaw mbokk ñu am ñu wax ne euh, kenn génn ni moom la Assane Mbacké hmm. bañ jàpp ko ci dégguñu sax yéen ñi nga xamante ni yéen seen maraal waa njaboot gam fare rek lañ gën a dégg seen i wax lan moo taxoon yéen kenn déggulee xam nga man yooyu fekkuma fi hmm. Assane tamit mi ngi koy tuumaal xaw ma fekk na ko fa ma fekk may yoon mu ngi woon si affaire yoon nan bàyyi yoon def liggéeyam mais man day li nga xamante moom laa ñaan man mii di wax ak yow am na ñu jóg mii ñëw dañuy lakk sama kër ci samay mbokk lan. te xam nga leen samay mbokk lan ñoo xamante ne dañoo jóg ñu ñëw dañuy lakk sama kër ndax boobu dafa am benn affaire bu jóg te doomi sëriñ bi ci liy yëkkatoon ak boobu ci la bokkoon ñu taxawal benn mouvement bu ñu wax safintu amaan hmm. déggoon nga ko. Hmm. safintu amaan boobu noonu man ma ñëw def point de presse ni safintu amaan biis la tudd. ndax benn safina moo am mooy bu sëriñ bi reconnaître mooy bu sëñ Modou Lo ngaa bu jiite bi ma defee point de presse boobu noonu xëy na ñoom comme lañ ñoon seen intérêt laa laal ndax dañuy jàppale Macky Sall man ma jàppale Pape ñu dajloo ñëw neex la ak sama kër samay mbokk lan yu ma jege ak ñoo xam ne ñu sant bu sa lan ba loolu bi mu amee ma tase ñoom sama kër baa ngi ne sama kër lañ jëm ne lak sama kër may maa ngi ni kuy dem kër jàmm ak ba tase xanaa war a man a dëpp man bokkuma ak Moustapha Cissé Lo man sama kër Serigne Touba moo tax ma am ko man sër Serigne Touba la ken ñu mut jaar sama la lu ma neex lay wax lo xamanteni yoon la te ken mo luma dara ci dekk bi hmm. euh, gisoon nañ ni maanaam biis liggéey dëkk bi lañ wax non Safin Amaan biis la tudd tudd Safin Amaan te boobu la tas hmm. du yàgg hmm. du yag mani ben serigne aman mo am moy bi Serigne Modou Lo bu jitt di liggey liggey bu rafet Serigne Modou bu sa jang ak Serigne saliw jamono yep ñu su doon japp joxon ko ndigal doon ko jàppale man mi ci bobu la sila ci la nek ma ngi ci ginaaw suñu mudlo nga bu di ko ci si liggéey suñu tuba bi ni mais benen civil amaat amul rek contre ko te ñun saa la kon lolu dafa nekkoon ben fenen bo xam dafa jaarul ku wax len rek ñu ne da nga lakk sa ba koku sax amna ko xam ku sant bu sala tay neena ñu na na si bokk gis-gis ta mom mo taxawon directement ni Cheikh Abdou bar Dolly dañ ko interdit Touba ba bu ngeen deglo man jamono bobu non ci suba ga defna ben sorti ban def ko rebe presse ba mu wax ne képp ku ma bëgg gis bu àjjuma da fekk Touba man duma ko ñu aaye Touba man du ko ñu aaye jamono boobu te kooku tey jii noonu nee na bokk gis-gis la bokk ah man reconnaître ma ne bokk gis-gis la bokk ndax koo xam jaayuloo carte ba pare même pas trois mois nga wax wax boobu noonu tey nga ñëw ne bokk gis nga bokk yaay nangam nangam kooku moom la intéressé mais daal ñun ak sunu daj yi ñu fi daj yëpp ak responsable yi fi teew yëpp tey xam nga ni ñun dañuy jëf. te ñu wax ñun suñ Tuubaa ñor liggéey dëkk bi ñoo jàppale askan wi mooy ñor hmm. ci loolu la fa fas yéene. waaw ci seen biir parti euh, sëñ bi euh, ñu gis ni euh, Pape job moom ñu bëree bëri nee nañ dox gi yéex na wala day day teetoon rek fan la jëmagul est-ce que kon kooku war nañ ko mën a dénk am réew ci ni nit ñi di waxee. waaw xam nga nit ko baax du yàkkamti te Pape Diop ku ko mën a gën a yor réew mi amut ndax fu ne jaar na fa dooma tànk gu nekk yor na ko moo nekkoon numéro 2 de l'État. ku dem ba nek loolu war nga ma nekk numéro le numéro un te ki yor réew mi tey ji pa djuma ko yelifon jamono yoy kon ko kay war naa mën yor réew mi yàlla mooy joxe ñu ngi ñaan yalla mu jox ko talib sin Tuubaa bu dal bu tay te réew mi boo ko yoree nekk taalib Sëriñ Tuubaa Sëriñ lay won yon bi ngay jaar nañu ko ñaanal 2017 ñew ñu gañe député yi bu Macky Sall samé kaddom en tant que président de la République mu sam kaddom ci lam mu mu respecté ko ah ñu jël ko fi ci carte yi bàyyi ko mu dem ak njabootam ñi ngi xam ñoom ñoo fa des nag li yoon wax si ñoom ñu def ko bu fekkente ni luubal nan waaye dal maa ngi ñaan en tant que citoyen comme neen ñun ay citoyen ordinaire lan moom loolu la wax ba tax na mu ñuy traité traitement ordinaire ba tax na sax boo xoolee euh, programme religieux yi mu def yëpp man de bi ma gis Tiwaawoon nga xamante ne neen leen dinaa leen àggale seen jumaa dafa leen centre boo xam ne neen la fi ngeen di conférence ba seen cérémonie officielle bi sax fa ko def ren ñun mu ñëw Touba de au lieu que mu àgg mu jàppale suñ jumaa ji nga xamante ne moom la suñ Touba bokkoon wala université bi xamante ne seen Seydi Moxtaar tàmbali na ko nga xamante ni njàngal mu am solo far jàngale defu ko du defa ñu ab gendarmerie digg ñu ab hôpital tabaxu ñu ay duus si dëkk bi loolu daal wax dëgg yàlla gis nañ ko fi loo xamante ni moo ko fi def. waaye yéen nag yéen murid yi ñoo wax ni ñoom jumaa waaw mais boo mais boo joxee at ñu nangu. xam nga ñun jumaa rek du kenn ku jóg mën ne ko àggaleel mais bi fi sëriñ Abdoulaye nekkee ba tey képp koo xamante ni yëkkati nga sa dërëm da nga fiy joxe mais bu mu ñëwee joxoo ñu yokk si jumaa ji wala mu defa université bee nga xamante ne suñ si demoo taa tàmbali na ko mu ni moo ko àggale ngir xam ne état la am na lu nga ko mën a àggale ngir état mais moo gën ay duus yoo xam nga ne duus yi nekk daaru xudos yi war a nekk Madiana ak yi war a nekk guy mbind douche yooyu lu nga koy ñaan tam yooyu nga xam ne seen ba nu nga ko fondement woon wax dëgg yàlla bi ñu koy fondement ko. daal autoroute Ila Touba loolu euh, kan moo tax mu def ko est ce que maanaam moom sax moom. ay wax la rek mais yow du du fii ak 2017 fii ak 2017 yow yaa daw bi. est ce que lu wax yi non am xam nga xam nga xam nga réew kenn du ko yor si ay tatonement gis nga autre Ila Touba projet bu am solo la waye xaalis bi nga xamante mo koy def ci sun poste lay joge wat duma moko fi def ngir ke mom xaalisu état la ñun ñooy wañu ko fayat ndax ku fajaat da ngay fay te fi nga xamante ne neen fi lañ ko jëlé moy dañ ko lepp lo de nga ñox ko bataay bu ko agalé baax na bu ko agalu keneen ku ñu agalé ko waye goma ne mom fi 2017 mo ngay agalé moom te bu ko élection yi fekkee 2017 mom ñepp wërna ni Macky Sall day daanu ci élection yi Touba du fa gagné yow mi doo ko wote man du ma ko wote keneen du ko wote waaw te gis naa ñoo xamante ni wér na ma nit duñ ko wote te Touba mosu fee gagné benn élection. Euh, li coow ci Touba lépp fan euh, muy actualité mooy euh, parti bi nga bokk muy bokk gis-gis ne ne coordonnateur bi ñu bëree bëri nee nañ ay fukki nit ak juróom dem nañ ba pare même yow mi sax wax tuumaan nañ leen dem nga dangay wax nii ci kaw ni waaye biir gi moom yaa nga APR. <laughs> xam nga loolu mooy jaa jeexale wax xam nga noonu moom. bis bi yalla sak bu gisee lo xamanteni ko xamanteni ku ko dérange dana ko tuumaal lo xamanteni du dëkk man gor la man sama wajur dafa am lu bari ma jàngal mooy doylu ak muñ gis nga pap job ay posto yo dañu bolé wut ñooñu nga waxon dañu dem nga dégg amna suñu bari ñoo xamanteni fekk na réunion ku ñuy wax serigne Abo ñi ngi fi won mooy représentant bi nga xam ne moo jëkk maanaam doyooli te limoon na ko suñu dem ne ñi nga xamante ne limoon na leen tamit woo naa leen am na suñu xam ne demuñu fenn ñi nga xam ñoo ñoo ko jiitoon tam waxtaan na ma ndax ñoom dañoo meroon dañoo meroon téye seen bopp bi ñu téye seen bopp gisuñu kon waxal benn waay boo xamante ni mi ngi bokk APR comme noonu noonu nga xam yàq xat la nekk conseil de la république ñëw ci pa ñëw nii nee naa di bëgg dugg si te bi te nangutu dugg si parti nangutu jënd carte. am ak problème Macky Sall ak Marème Faye Sall tax que mu ñëw si ñun bëgg a yàq suñu parti loolu moo taxoon ñoo ñu décroché woon toog waaye président Pape Diop ni ma ko xamee du jël nit tey du ko jël nit démbam ndax aussi téye nit moo gën am nit sa nit boo ko amee da koy téye par dogut keneen mais fekkente tey boo amee si nit mu liggéeyal la nga gis keneen ku bees nga bàyyi si nit am kooku noonu ëllëg boo gisee kenn ngay bàyyi ko dem gàntu bu yàgg doo am déedéet xam nga xam nga xam nga xam nga coordonnateur la man mooy coordonné hmm. ñoom bi na mi leen naqar wax nan ma ko wax naa ko seen kilifa li doon mooy gàmm geeg mag gi dafee dox ñu waraloon dajee bi may woot maa ngi dakaar ñoom waxul woon dañuy bàyyi dañoo waxoon dañoo am leen naqari bin ko waxe ba man mi di wax la yónnee na len delegation wax nañ ni lo tam ak yow sax ñaar déedéet déedéet xam nga xam nga xam nga xam nga. ñu ni señ be len yabal. xam nga man bo gisee tay lolu am moy ku bok ci parti bo de daje bo mu woy dina ñew te biñu def daje boobu waxu ñu la ñuy bok gis-gis dañoy daje dañoo am len nakari may len dem len ngeen tew deglu mo ñu nga rentre mu compte man bu mu fi jógul bu mu fi nekkul tamit sama parti ba nga dox ci man. bi nga xamante ni ñoom jóge na fa rendre nañ ma compte ni ñoom bàyyi nan moo tax que bi ñu ma waxee ni bàyyi nan te ñoom ñu nekk fa dama ne leen kat la ma mooy dinaa def de presse boo xamante ni dinaa woo mbooloom yëpp ak responsable yi nekk si dëkk bi war maa ngi leen tàllal loxo mais bu ñu dem ñoom dong ñoo dem mais ñun ñu ngi si Pape Diop jusqu'à bout un pour un waaye nag parti bu bëgg a gagné réew mi 2017 wala 2019 ni nga ko waxee pare euh, ñenn ñi di dem itam loolu est-ce na. waaw xam nga parti moom bis bu yàlla sàkk ñii day dem ñii di ñëw. ndax tey am na ñu dugg si parti bi ñoo xamante ni tey waa Tindoo di gis nga leen bon waa Thiawén gis nga leen dégg nga ak ñoo xamante ni dañu seen loxo ni tey ñu ñëwaat pour bokkaat si parti bi ak maire yi nga xamante gis nga leen si koñ bi ñoom ñëpp tey ñoom ñooy parti bi parti noonu lay doxe ñii dañuy ñëw ñii di dem waaye lépp solo mooy ñiy fal parti bu jaa ngeen ni maanaam militant yi ak militante yi mais ñi nga xamante dañoo nekk ay citoyen nekk seen i kër. gis programme mu neex la ñoo ñooy fal ñoom ñooy fal président ci ban programme ngeen indi bo ya bu ngeen yaakaar man ngeen ci yeen euh, jog gis nga tay ji bu yalla dogalo ñu jël réew mi hmm. Touba courant bopam Touba lu ko liggéey man mi di wax yow demoon na am partenariat Chine yo xamantene mbalit mi jóge Touba mën na def courant Touba nga xamantene ben saaru usine nek ci ginaaw Mbàkke fofu la nga planté fofu lay jóge directement do élément Touba courant du coupé dal programme la

lo da gis nako fi eh. ma mo samay beut di xol lo la gis wa dañ jexal ci doxinu rew mi fan yi ciow li yëngu ci walu Lamine Diack beeg yu mel noonu wa xam nga lolu lan nga ban gis-gis nga lolu wax naa si damay ñaawlu japp ki japp Omar Sall ndax Senegal tay bo woo boo yeewoon Senghor ni ko ni nga ko ne japp ko pourcent bi nga xamanteni ñofi nek ginaaw dund ginaaw indépendance du ko gëm wa déglu ma rek mais li mak li mak Sall japp ci opposant ci ñent at yi Abdoulaye japp ko fukki at ak ñaari japp ko wàññil opposant yi japp yop wa PDS yep lañ leen presque ku ne dugg nga kaso kilifa dini dugg ay kaso journaliste yi ñu leen di bund xata di leen tëj ak a tijji ak leen wo ko ñew mais lo abla dama fon te ko don bañ jamono abla tay ñi ngi ne xuub japp seen bop Lamine jak mag mag jëm mo xam ne amul juróom-ñett ñi wax ni nee jël nga ni bi nga jël opposant ko jox xam nga opposant jamono 2012 ñep opposant la non mais solo moy nako leral moom bu fekkee leerulu ko bu fi nguur gi jógee ñun bu ñu fi dikkee yor nguur gi daan ko leeral te ñi ko xamante ñoom lañ ko jox yëpp dañ leen dëj ci kaso bi. yéen yéen politiciens yi bi dëkk bi euh, lampe yi mbay yëpp coupé nañ lan moo tax yéen ngeen wax bi da leen di logal ngeen di log logal wala da ngeen di ñëw bi. moom mi ngi liggéey. te courant bi bi euh, lampe dama lay xamal ne gis nga mairie bi. mi ngi liggéey. Hmm. dafa amul doole nag joxuñu ko ay moyens. ay fonds de dotation yoo xamante ni du dara jamono ab Ablaye Wade ba mu ñëwee ba bi mu fi jógee ba léegi ñi nga xamante ni màggal gi dañ doon def sax di joxe ay pot lampe ñu yokk courant bi amatul te loolu état moo war a yor affaire courant dëkk mairie bi mu dara ndax amuti mooy yu ngi ko defee li mairie bi liggéey ku su néew buñ ko jaawle état bi liggéey mairie baa ngi def ñu ngi sant Abdoulaye Ka si jëfam mais nag maanaam état bi def fi dara li ab li li li ko def bokk la li état def tey laat ka tamit li muy def malgré que ak mooy yu mu tuut tuuti Touba ñu ngi si gis seen bopp ndax tey ji kat koñ bi yaa ngi gis lamp yëpp nga tàkk te mbéy koy fay canalisation yi ndox mi nga xamante ne mooy addition bi ab laat moo ko def kon loolu lu baax la mais bu fekkee def dara bu yàggee dëkk bi dem mais nag bu fekkente ne yow amulooy dox fa boo xam baaxul leen war a fay say courant say kii mais liggéey état bu bëggee maire bi dox surtout que maire Touba da jox ay moyens ay jox ko ben moy ñun duñ gagné dara kon lu mëna a liggéey dëkk bi lan sant yalla gërëm li yalla bu baax baax sant si Ahmad Bamba ñaan sëñ Sidi Mota comme ñu ko tàmbaloon mu yagg fi wër ak la porte-parole sëriñ Bass Abdou Khadir sama waaju sama xarit bon di ñaan yalla def jamm ci réew ñi nga xamanteni mom lañ tej sama borom ñaan ñu tijji leen bu leen tijjiwul ñun bu ñu gañee réew mi tijji leen di ñaan tamit atum jamm 2016 mi bëgg a dugg mu dàq 2015 bi ñu génne te yàlla dogal 2017 bu ñu si àgg jàmm Macky Sall pett mi ñu jël réew mi asalaamaaleykum wa rahmatulahi euh, salaam wa rahmatulah euh, Cheikh euh, Abdou Mbacke Bara Dolly ñi ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci sa disponibilité ak taxawaay bi nga xam ni am nga ko ak itam nu ngoo tontu nga nu ngoo tonk tontu suñuy question ñu ngi la ciy sant bu baax di la gërëm ci taxawaay boobu ñuy fàttali yaay coordonnateur bu bokk gis-gis fii ci tubaa